bu may dugg rek ci biir laay dugg xale ba nag nga wéeru bind rek te rentré là-bas y a pas d'aujourd'hui la guilima granquel encore demande samtel de jaɓel senen mbidde sor ya bokkili ɓay gañna ko kosla cokkol du noon lasika jahalorno ɓeɓe mbekol ɓe kolɓinda telluɗo jisuldula mana laal ngal jala kamnam kay jaami fofa kañ mang moytu wasi wasi jeyi wattema a ah, mini binde barinade wasi wasi jeyi watet jeyi wakkarsi ko jeyi aw jiw jaw joɓit mang rangoñok tan sarka tuggalen tarali ngaw jiiki min jaka man ja taɓɓa ɗumen batak man eh, tayki konene ɓi ɓin mundoor kaasadi dukkat ni ma ko fo ma ne ko kii nag mu ne fay ma ne ko ah fay lan mu ne ma papa yaa ngi war a fay juróom ñaari téeméer ak juróom ñaar fukki dërëm ak juróom ñaar ma ne ko ah yow da ngaa dofam ci ne da laa jàppam paan da laa tongalam da ngay baadoolam da ngaa yiwam yëpp da ngaa xamul kilifaam da ngaa ñàkk fayda ak sa dox bu gàtt bi ak sa faxe bakkan yu xat yi ak sa nopp yu fekk yi gëndu ko ne gi nag da ci ko rek xamal ko mu daw ah, mana xale bi daw mana waay bu ma fi newoon di bett bettalante ak moom dana ma fi andi complication man ma ngi dene xale bi damaa gis yërëb ma dima yakal wala mo lek ba desal don mako sarax déggula ko de nga ni man mi nga xani sa baxaw ba ngey boy ma wacc ko fa di yalwani ndakaaru ci ndetal wer wi lu jar saakub sumul bu sa wa keur ñee lek mu naan ma juroom ñaar way ki dal dama war way ki lu damaa yab sax fi ma ci ko siin mo andak ko ko lu ma ci mo xari mi ñaar fan la la mu ma nga dal ni déggula ko ñu ñaas ko ba dem ma digg jëm bi bima ne nee ni gàgg ci waji rek lu day ni déggula ko moñata bi ni kër rëbëti ci genre dënn bii ne jaar mu ne ma yéexalu fay ma ne ko ay sëriñ bi mu ne ma bul ma ni sëriñ bi yéexalu fay ma ne ko xoolal man kabandoor bu la mattoon bu ma la rombee ma wax damaa dee woon gone gi damaa jiit rek yërëm ma di ma yekkal wala mu lekk ba desal doon ma ko sarax ndax man maa nga jóge cëpp kaw ga ba xaw baa ngay booy ma wàcc ko fa di yelwaani Ndakaaru ci ndeetal weer wi lu jar saakub sumul bu wax sama waa kër lekk ma wax ay juróom ñaar téeméer man tabandoor ku matt bu la rombee mu wàcc dara laa yur sama ku naan dara laa yur rek laa ji daal di takk sama buur ji ndaka mu ma atamu nag mooy baaraamam bi ba mu dër rek mu yor loxo bi sa poos bi yëlëb dajul dara mu yor ci bii dajul dara mu dugal ci poos bi bay di fay te dajul dara mu ma di ma rek mu ma loxo ci sangam yi ma mu ni ci bi ma ci sama li rek rek falax ko ci karasoli Ouattara ji tall ba mel na yaari weñ yoo fénqale ma dégg luy riiri ci daal bopp lii man taatal saa loxo bii mu fees dell ma xool ko muy def ma wit càq ko rek Ouattara kor ne gaaru caaro yi gaa yi daal ma di ñël ni fant feesoo daaneel ma ponkal mi daal di tata fu nag saa kii bi wañaar ko ba nga xam ne wañaaru na mu fa baaraamu béy bi daal koy riix ci saa porte xum xoor bi nag daal may bis mu wuti tànn bu caaro yi te booba fekk na di gula comme gone caro yi gëna yaré di ci adina tak bi ñu mëru nak ñu dene di gula comme la wax man dab tak ci la mba dara seen xéer yow yi di gula comme bi may doga départ doon naa fa ñaar sang la do dootuma gis dara waji dal may wax ne ci biir gaar heure ci le sar bobu sandab muri bi yoxoot dal ni biir gaaji musa ndjay ñu teul gën déggulo ko mu ne ko lawé law ko parce que t'es rentré tout plein de ah waaw yow sëñ bi la ilaha illallah dal may gësam nit gub kii bi ne kaw déglu ko mu mel ni lëndëmu waxtet googi laa ne gars yi nag lu ñu la miin miin ak lu la xam-xam booy dogo ak si faaw ñu génne jikko bi waa ji demee mu dal di dikk ni ma tijji dikk ne ak ah, comme yow Moussa loo boole gaa yi ma ne ko man kat damaa dugg ci otoraay bi rek xale bi nee papa da nga ndékki ma ni ko danaa ndékki te xewoon naa dama koy sarax wala mu di ma yàkkal ndakete booba dañu koy jaay rek te xaw ma ci woon dara mu ah waaw yow daggoon nga bii ma ne ko waaw mu génne sama bii woon ko mu ne ma ah yow nga waroon a dugg ca frigo mi gannaaw ya nga dugg première classe loolu doyul la nag ngay laaj déggu la ko ganaari jàmbur yeeg café wala yeeg yëpp nga ménagé ko lekk ko di yow da ngay contre man ak man kat waaye fi ma nday kebe génn jabar nday kaay wuyu sa baay nday génn man ah Samba Diarra ma ca àjjana alaaji Mbaye Kébé sa baay nga Touba Mbacké Aminata Fall la yaayam Samba Diarra baay ma nga sunu dëkk alaaji Cheikh Kébé sa baay nga dëkk ba ñu naan bani Aminata Fall la yaayam tudd Samba Diarra baay ma nga Poaline Mbaye Jama ma ca Njaay ñama diyañ ma ca tebbu dog ba jawaar mbirum jigéen Njaay jàmboor saar bi jeen biram yaay si ma joor ma xuri jo fuli ma samba takko amari la ma jàmbal jowaar ñu ko fa ma ni ko nag moytu naa ko mu ne waaye papa Moussa sa bët yi daa xonq coy di ma ne ko kooku nag waa nenu àpp loolu damay faral di dal man waaw papa Moussa ak der yi sa paxe bakkan yi ma ko nag ndey day def man bu mbóoyaa rek damay faral di bori dégg la waa ji ne ko demal sa baay bi bisaab bu xonq mu def ko ci bërin gi ba ndey di tàngal bisaab ba nag man Modou Ndiaye laa fa jóge woon booba kat jóge fa jot na moom wax dëgg yàlla jot na de waaye nag li nga xam moom laa ko ci ba tey mooy maanaam sa ngan ki ngadi wonti nit na gunas dal ci ndaw su xaw ci Ah, tarali tarali hay lay lay tarali de da ci son rek te wujju yi xamni tarali da ci ci man xawma ci dara wa kër gi xamu ci dara modu nday ma nga bay fer yu ma bay bay bay bay ba ñor ni cialé xonk ni di gulo comme sa bok bi da ñu jëlim bu melni di gulo comme la wax man robbum ndaw ci wataray tel ma dugg ko déggula comme onze heures demi ma cëppeeloo sans sa liis déggula comme romb ki fekk ndaw si tànn luy toll ci ñetti kilo ceeb ak liibar wujj bi daal may woo kumba jang eh eh waay waay Moussa toogal ma ne ko waay damaa bëgg a àgg nii rek ndax kër monsieur ndaw gi laa jëm te man fii ma mu ne déedéet waay Moussa toogal ma ne ko xoolal kër bi ndaw ngi nii àgg naa ba noppi dama bëgg a egg mu ne ma mukk yow kay doo dem toogal rek ni gaañ kanam nag kanam ji mel ni ko mu sibb nga ci taal ma ngay ŋaññaañi rek di gëdd gone yàgg xamal ko buusoo ko déglu ko yónni kanamam ji dagana rek mënuma toogal. maa la ko wax. ah sëñ Moussa waa dagana nga toogal nag. xale bi déglu ko laa la wax ma nga yónni kanam nga dagana rek. déglu ko ma ma may mu ni ma mukk waay sëñ bi toogal ma ne ko dara damay man mu ni ma àggal toog ma ma daal di daaneel sarali bi mu ko defee nag. ndaw si di ma gétteen rek ba ma summi. ndaka mali sumee tankolle ɓi ɗe gula kom ɓuti janga par ñaña fasto ma daaneel sac bi ɗi gula kom sumniku ndakate bi ma daaneele sac bi sumniku rek xale bi gën a nakko gañ-gañ rek taralee ngay kii buusu rek bi mu ko defee bi ma sumni ko Kumba jang ni ma Moussa demal ci duus bi raggu ma ne ko Kumba da mu ne ma mukk da ngay raggu rek ndakate waa ji sëñ bi ku raggu raggoo aay ci ku xiif nit dootu bila rek bo ba nopi dal di ju ma tu ko dama fas ba fii nu ne mbëtt mu far rek da ngay wees tay nga fas na ngelaw li sa kol bi rek déggu ko comme di bela wuy di ningi rek ndaa ci du ko rek ne soti jëkkër ci garé auto bi dal di ne naka añ bi gul ma jóg nuyu ko bima koy nuyu sa tank ya ngi rek gan mali sa xef yi wal nuyu nu jamanti di gulo mu ni jabar ji taral li xamna ci do di daa noppalul borom ne boli ba mu ne boli sa jabar ji soxna Mati tey na ne boori soxna Mati bii mu wànq xam nga jëlu ndar wu mag woowu ak ngot déggu la ko mu ko ci déggu la ko ma xuluñe jeeg batañse beeg carotte beeg nawe bi ba muuri gi juru ful ak supame ak supame si déggu la ko man ma ma daal di wànq déggu la ko faxan ci bi ñu lal lal tukoo gi ñuy lal balaa ña jot ñu ñëlat ko lal ko dal may réegum raxasu ma dal saa yow tànk yi raxasu ba wom mi saa daay sikkim ji wéer saa bopp ca miir ba ñu rangale ko lay diglu ko ma jàkkaarloog ndaw su siis si naa sablu mu pugira rek ma dag ñe tek ci sa kanam dag batan ci tek dag supame tek ni tagu jeen dindet ni bro ropet ne xob leet la wi ni dem ni tup ndox tip dag degul ko law tin ko degul ko ni bro ropet degul ko la la man man na jelas ko rek ni jankar nga saf lu ndaw ci dur ko ñent sel rek da ka boli ci tawal ko mu wi ma delo sa ko pa ko jeli wu mu ne la ila ila moy man damay waro way mo ma sa gis li way ma delo nak sama ko fa ko jeli won jafana dag supame tek tagga ci patañse nawé di gulo ko ni gu jëm di ndet ni roof rapet mu xulli xaabat bi gulo ko rek ni yépp ñak di gulo ko mu door mu xët doom jani hee kër gi dé tay nit du fi yaani mo an damay waaroo nakkub gan jën dégula kom rek dooñam yi fasto ci ci kimba mo wi ci ndab la dan ke ba mel ne lettal ka seeli ko xulul mu wanu dëggu ni ko way bu fi maccaat des xam nga ñoom dañuy wut ma pëlu ndox mu sedd momi dañuy wut kaas yu ndaw yoy di diko ca xel ka def yi bima dia geesoo yam ci bidong bi rek ma tatafu da da kama koralam bidong bidong bi rek dem ak moom ne garaxe garaxe garax fépp ceeb yi jógeen ci tun yi di tuuse waat ci bërigo bi ndaw ba mu jam den jéggula kom xulli bëtam yi rangoon yi fasto ca dënn ba nag man moodu laa fa jóge woon booba ko jóge fa jot na fa jot na kat fa jot na fa jot <laughs> moo Modou Ndiaye léegi nag kon nganu njekki naan gi moo ci des nganu njekki naan gi moom nii la demee woon danoo bay amunu dara àll bépp wer réew mi tax wet gunub géwél jëm ci yii géwél jëm déggula koom laalaxmaan Tamba yii géwél jëm Nioro Maamu Ndori yii géwél jëm déggula koom Kaolack yii géwél jëm Sébikotane yii Bargny fu nab géwél jëm fa ma ne man Ndar laay dem ñu ma ne ma ne Ndar rek julli suba déggula koom amunu dara réew mi tas ne tasi neer ga cawaar lu julli suba ma dugg wataraay bi daw ba ni dër wàcc fa gaaru bu ba ma cëppeeloog sans wali fekk fa ñaari mag ma nuyoog ñoom jàmmante ñu ne mbaa jàmm ma ne damay laaj sans kër mel na mbokk fii ñu ne nu mu tudd ma ne ko këraminta seen ñu ne ban quartier la dëkkoon ma ne jàkka yàlla jirawaan ngom lañ ma wax de ñu ne ma seen nga sooroor be ma ne waaw mu ne mooy jàkka yàlla jirawaan ma dugg ko teg sans wali ni jaar nu ñoo gaminta nu jàmmante moom Moussa Mba jàmm xew ma ne ko jàmm xewul ma tas na fekk bu ne Daniel Sanwóoli mu den Moussa ma ne ko dara réew ma daal dagg na ne na su gëlim xëtt na fu ne jëwel jëm na fa Daniel Sanwóoli jéggula ko ñu defaral ma ma daal di summi ñu dugal ma ci duus bi ma rag bu bëccëg ñu dia ko mu wankandi ni ma lako jone jappuy dag luy juróom ñu andi boli bi ngot ndar woowi ma aña aña aña añ ba melne ne lattal ka sooli ko kulul mu wonu dëgg genn ci ñaar lu dégg ko comme sal sax xef yegg rëntu an bobo tuba guma ni ñaar ñu sedd tepp dag yent yer la am dara fukki fan ak juróom sàkkol bi ñu rëb tabalay bur gannar xam nga ndama fi gëna yomba yafal dégg ko nga jéssu mënu ko bi ne dag dar may bur rek sando bay ba yépp genn man lak nga déggu la ko yent weer yi ma tëdd ndar ak fukki fan ak juróom bis bu ne ceebu ngot laay aña damay añ ba mel ne lettal ka seeli ka xulool mo wàllu dëgg raam kër egg am dagg ñeent ñoo seet da fekk nga dégg bi fel la goore rek bi ma amee yent weer ndar ak fukki fan ak juróom geesu mënuma geesu tàmmoon naa nag bu ma añee ba noppi bu ma jógee kërantuwaan lal saa ci jaadee ci ker taax bi xam nga kerum taax du am volontaire bu ngelaw di jaar wala dara day nuttee benn rek ma wéeru yi jël ses sa kandaat këndëng songali di rak ci tali nelaw mm, fi may rak ci tali rek doxul jàmm gu ñu waxaram gii ni jaas kii ma ni salaamaaleykum ma ne xi nit ni jàkk ndaw ci ni ko maaleykum salaam mu ne ah xanaa kii du Moussa ma ne ko xakaay ah, mu ne la yow de naroo bay rek ma ne ko réew ma seetal nañu root bu yàgg France nañu fam nañu seko bañ ngay xooli seenu jiw yow doo bay ma ne ko yow day daawoo wax jàmm waaye taye ci raw ndaw si mu ne ngeen mu ne ma waay réew ma lii ma la wax kay moom salti na moom kay xam naa yow sërxal ngay def ren ma ne ko waay ma jàmm sërxal kay ma ko def dikk ni yaminte kat mbir xew na mu ne maa ma ne ko waram gi duxul jàmm gi nee na ma réew ma seetal nañu rooj ba faraasu nañu ñibbi rek laay def takku ñu fóotal ma yi ñu ma may woon ndar yëpp taagaande ko digul ko mba xabtaan ɗo ci sol boo jon ko ni musidmi jëndal ma wali so xay wo ɓee ful xottin ma xabtaan o basee taatu ponto ñi ñaaw ko ba ñaaw ndog ko jëm lii ñëw julli suba jëkkër ji ne góor ki jaan la woon bi ñu wax góor gi jëm mbay mi ngay buteeli sikki maag yooyu nga xam waaye bu fajar yi dootu ko gi ci fajar di bula bi ma lemee saa walis bi ka kërëb kërëb bi ka daajale samay kalma ñangaan bi ma nee bét walis bi rek la butéel bi ne la yéen ci walis bi dagat ma ne ko kàpp bi ma nee kàpp walis yi déggu la comme laalax man ci biir bi biñ ma ma woon ndara yëf yi ma da di solo fataraay teer ma yëg ko muy def ak man dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal ba nu dërëlu ba loo kër mbër gu bala ñaananta paqalandat njaay sini bi ndambaaw benn gaa yi takku néeg bu doon ñaar mu ci mbur mbaan ma joyanti kasket gaa kakki bi ma boose caam defaloon ni watiir mu daw toog ma ma ne ko di ci ma kër Antoine voiture ba ngay def raj raj raj raj raj raj ma jay rek ma def roj roj roj mille cent ndokkasi li ci ëllu way voiture ba cent cent wëlis wala ngan ci sa gannaaw ak ba mu diis roj roj roj ba ni dër kër Antoine ma ne yaay yi ñu cirib bi ma nee cëpp wàcc diglu ko maa ngi fekk labba mbay wi jeg ñay bin taag ale binte jeggulo ko mak modou ñang ñam gona yi ñi ngi fess bar bi del ciaga ji jeggulo ko mak mborbo nak man jaas rek la boy lat jor mbay jibes bi ku mbay sen daw ngoj makku man daw sunu sangangi deggulo ko waji deggulo ko male binte ni ma jeje ma ta bama ko penda jawla sa ndey tuddu way ndek man baye ma nga xombal ma daara penda nga baye ma nga ciowam jaaje ko ma mbol nañ ko jaar bi ngir am bolé ko mu may jolu mel bolé ko manu golem ndom man ñangal ma place ma di ju ni nañ wacc ñenti gi jëm ah, ñu wacc ñenti gi jëm nu dal koy li bo ku ne melati ku dir bi sey gët tol tam morom ma xam ne gars yi dee ñu mën nañu wàcce yeneen ñeent ñu wàcce yeneen ñeent ñu ko fuuf lii booku kenn ku ne dendati say gët xool sa morom ma ne nañu wàcce yeneen ñeent ñeent yu mujjee laa ne jakk mel na ma wuppi wali soo dal ko cay noox ah. waa ji leen Modou Ndiaye xaalis bañ ma may woon dara yéen yeeg yi Ndiaye ñu ko fuuf na naa ko lépp rek lépp man di te ma jàpp ma ma bulum tàmbe sans yaram yi déggu la comme liis déggu la comme taxaarum këyiti journal yi ma yoroon bi ma nagam loo sans poste bi wenn nit laa ci daj waaye nit wi yeex na ba boo tërim sink boo ko dawalee ca bëli ga mu dagg ma boole ko taxaarum këyiti eh, eh, journal yeeg bi piir nuux ko sans poste bii rek la nga mandité ma jàpp ma ma dagg xàllu kër gi bi bii nit fa lu a dikk na maa nga fakk tala way sans bopp rek la jor sans maama nga daara ma seen fa di ma nga ndar sak ko saka goɗɗo jam saji hakkude jalma diyen gore pour jalamare jamran ganda demba jalen dogo ko fele ma o jor kumba sambe ay jalor kanda jawla sama ndey tuddu la tir la ndayem tuddu soxna mbaye ndayem soxna mbaye ba bator fal mbirim jigen mam goni kamba gu faal ndela gawon cendo jean baye lat jor baye ma nga dara ma sen hori baye ma nga dar sak gandara saka goɗɗo jam saji hakkude jalma jigin gore siw ko ko liggey gudde dawal janla bula matte nga de bula buru songo gumba bo bomul gallaji do ko den gabbar de ku ñu wax njekkinaan silli booba nag njekkinaan silli tas nañu réew mi ndax tege tege rek waa ji amul kenn kenn koy sang waaye te jublu njekki naan amul ndax tege bi gone yi teg fekk li gula kom ma taxaw ca kaw tund wa ji gula kom sapp leen ñu ne ca xur wi mbaar nañ fi mbaar moo xam ne mii moo ëpp looy gula kom wera ndaaw sëñ Moodu Njaay wi jigéen ñaag jeeg jaag màggat ñaag jànq janga dajaloo ca mbaar ma sasoo baa nga jàpp ca kaw jàpp ca suuf ma taxaw ca tund wa rek sànni butéelu ci kii ma yor mu toj diggante Ngunjura ñaan ak kër Mor ak doog yëpp ci a day si ba jaar ñoom ñaar ñu wëlbati ku may may gëp nag man daa pell kàtt sama juróom benn baaram yi dama ko sangaan jaaro yi peme yooyu booba la ceen yi xew liisal san xef yi san koll bi fengat ma ni jalañ ci mbaar meeg cóolo ji ma àndal aku gi li jalañ fekk fa gone gu ñu wax di kumba caw njool mu ndaw la te daa xees boobu mbi pàkk dagg bëtam bi mun na ci kaw bi mënoo ma ni ma ni ebe est xadi ni mukk sama càmmiñ wi naaj koy dox jàmm di ci dox ma ne ko non ci parti la mission parce que mu mukk ni jakk taawuli so ak di saayam waaw yegg ni ko ca kaw taabal jan yegg dégg la comme bii bi waaru ndox taaj bopp laal bi ma suñ banku ni xaftaan bi ma soloon suñu yegg dégg la ko mu wànq nda tan li ma detteelu mu yóotu saa tànk càmmoñ bi yëpp ko ci deñu gi joos ko ba muy nuróog leexub liir mu màpp ci sar de teeg ne dégg la ko mu yóotu bopp càmmoñ bi joos ba muy nuróog leexub liir lànqal ma li mooy lokkoon dina jàpp guy dagg luy góob nag mu dajale gone yoon ca dëkk ba yëpp ñu dem seeti seen genn góoru gàll bu ñax bay jëm takko ko faal fekk na ko jënd ci kunta naar di sikki bopp da koo yaafal ba boo tegee sa loxo ci fàll rëy ba yu day baras ci ku ba ci lu pëmi ndax suur rek suur rek gone gi ni daal bàyyi biram danoo am gan bëggoon rek nga lebal nu sa sikket bi ba nu ko bu nu ko rayee rek mu dégg la ko bu nu yebbatalee no fay la waaye biram takko ni leen ah man day bëgguma jéeye de jéeye daal bëgguma ko sun diggante te sikket bi kuntaama ko lebal juróom ñaari téeméer la ma ko lebal te fayaguma ko yafal naa ko ba suur na gone yi ne ko bàyyi juróom daal yow juróom-ñaari téeméer nga wax daan la jox junni yow gisoo sunu gan gi genn la fekk na nag benn julog fas bu ñuy wax mbay sàmb la ñu fa jëkk a fekk fekk ba ñu ko fekkee mbay sàmb da leen a may fas wa ak yére yaag tegg ak laat ga ñibbi cembar ñu fekk fa benn juróom nag bu ñu wax déggu la comme laa la wax man Ibra Samb moom itam déggu la comme daa boole nawaag lu mat juróomi junni xëpp leen ñibbi cembar ñu fekk fa benn jëggu gëléem bu ñuy wax bàyyi ma dikkee Jóob Masar la dëkk moom itam dafa yeew gëléem bi ay bokk ma ko jël si booba tas nañu njekki naan gone yi ni ko bu nu yebb talee rek daan lay fay ba may yow sax góor gi nan dem nga luy ji gan gi góor gi diit lee gone ya nag ko si kër ba moom ci ñël daal ni dekk reen maa ngay walu nag nekk bam di foofu tandiku rek laaj ko lañ naan ak dóor dóor yeeg sàkket yeeg peri kër geeg mband meeg naa laaj ko lañ ji ba déglu ko ñi bi mel saakaande na naka góor gi ni yiw nu bunt bi ni ma cakk ma joyante ko saakol bii nu noog tabalay buur gànnaar a gii lii waan na lak laxalte lu bees sangat yi jaar ko góor gi ni ma jàkk ni ko ni day day day yéen kaay ma gis leen yéen seen gan gi gan boor la kii fukki neer la wala mu di transporteur wala délégation kii du baadoo la xam ngeen nu doon ganu ndar gu mel yàpp lu ñu sax dëgg la waaye dana xaw a ci nañu nañ ci boole ganaar ñu ko dina ganaar yi woon ca dëkk ba nga sorg ya kumba jóg cox liix ramata ñi njaan daagol daagong njéeme yoo santaan baay bi siq jaaje gi yoonu ganaar yaag ndul futt mi daye néggalim téemu lu dong jaan si guñ la tax nga ni góor nii ñu dawal paaka ca bëli yow mu boole laa fu càmmoñ ma tànkom na jox bi ni cal rek ni waaw baaxam a siq boo ne taxit danaan góor nii nu góor nii nu boo fabee paaka dawal ca bëli ga laa fu nday joor meeg tànkom càmmoñ ma lay ñu rendi ganaar yi woon ci dëkk bi yàpp ndax yaw waa ndaw si baxal mbaa nag bu day ne mbaa nag ma ti gii déggu la kom ba mbaa nag yi yéen ti la kom laa la wax man mun lii sal xefam yi déggu la kom laa la wax man ganaar bu ñu sëbb ca mbaa nag rek bu ñu la yokkee yëlëb la rek nga weex tàll ba mel ne maraaka su sëñ Seex Mbàkke yi ñu butti falaa may teeg nee rek ba ganaar yàpp yàgg weex tor mu daldi jàpp mbaa nag kat lit yu mag xëndi kat lit yu mag yooyu sànni buntu bu mag bi sànni buntu bu ndaw bi fab loxo bi taf ko ci buntu bu ndaw bi jootal mbaana bu ma xënd gi ci buntu bi ci bu mbaana xënd ga naan mutt fa mutt fa mutt fa mutt fa mutt fa ba ne boo ko déggee ci sa xënd jeena mu fiyan ko yenti gànji geer cokkantal ko boole coblee kat korop ni ko ci ci mu pay muy ba mbal mbal mbal mbal mbal mbal mbal mbal ni tel tel tel mu leew ganaar yaataaneen te muy bax yàlla yàlla ma dëpp nag sama loxo ci sama ko xaar journal yi ma yoroon ni ko xadi mu daw foofu fooy def ñax ñax ñax ñax ba mujj ma ne daseer nit mu reen di mbët ma ne ko la ko la ko parce que teral ñu daw jëndi yaat ma daya ngay jaay guro ñu ma la mu peese woon lu ko lépp mu jox ko xëdi mag mu ne ñu tay la ba di jëm rek sa daay si rek nga daanoo njaaxaana mbaa da yow yenn nit wi nga defee woon waaye noppi naa kay man man kay pare naa kenn dong ran kay moom <laughs> waa ji ne dimbali comme laa la man mu ne ñun tay la ba da jëm rek sa daay si kin ji nga daanoo njaxanaay ne juróom ñeenti gone géwél daal cay léegi Modou Mboba yaat ma sow ak Ablaye Sow ña ko naan ma si li ma jigéen jaay dee ko ñu gaaru ka bu ko tubaab ganam përi lay jóge xamoon na ni boo amee gan rek nii lay mel baax na it baax la naaru góor gën a fasu far ne fas ko jur bu doon gudd nopp ngay biir naaru jégu yaa koy saalub yobbu ngay wut waaye kon bu départ bu pee na ni nii ngay loo ko nekkul sa gannaaw la fay ñëw ma ci li ba jigéen jaay dee nga ñu gaar saa bu ko yaaya ma dugal ni leen bon nag en géwél eh bien man wax mënu ma ko jëf rek laay mën te tàng na te añaguma waaye bu ma añee ba noppi danaa jëf leen dégg yéen loolu waa dëkk bépp dana ci teg seen i bët loxo yi du doon luy jaasi du doon luy dellu gannaaw maa la wax ne mu ne waaw waaw waay Njaay kay booba booy ba ngeen dem rek man ku ma bëgg dana leen ter ma ne ko waaw ñu naan ko ma ci li ma jigéen Njaay gone gu jigéen bu ñu ko nee ca bët bi war naa rëy yëgguñu fi marché bi fekk waaju yu xool rek ni ma ko jox nga doon xool piisu perkaalub jàmbur ba ba mu soppaliku may luus waxuñu loolu lii rek la ma ne ko bon te rentre rek te rentre gaa yi lii wóor bu pare rek dana baax bu maa ñëw ba pare rek danaa jëf leen teeg yéen loo xam lii lu wóor ci la ni bu la ko mu yenti jigéen ñaa nga fee jàpp bay woo ñu sibbal jéer ñaa jéwél yaa mbor mboroon ya sor xolle sa jàpp mu jàpp genn mbana goo xam ne kii benn bu day ne booli mati bii mun a ak bu ko genn leefaago ndon piir lañ ko rabbe jàpp cungaar googu lang la bu ne ko dugal da ko di xëpp wupp ko ba muy nuróo guyaar mu ne geneen lëkk ni xëpp wupp ba muy nuróo guyaar mu ne geneen lëkk ni xëpp wupp ba boori bi jul mu wànq digg ba leew ganaar yépp ca fab dégg la kom googu ak lang la songali ko yóotu dégg la kom layib ndox bu ñu rabbi bir ni ko ca gat jàpp benn sérum njaam bu ñu xam-xam ba bees séen ko ba nga xam ne yem gaa yu na mu di ko ca digg diima ba xeq yóotu dégg la kom ma dale saa weewu tànk bii raxasu ba wom mi mu jàpp bu wéeri xat yu mar yooyu ni ko ciirib sap yootu déggu la comme rido ba nit ci wéet ciri déggu la comme daal ne ma añal ma ne ko mënoon ngaa ñëw ma añal rek ma xam ne bu ñëwee sa programme day xaw a yàqu ma ne nii leesal saa xef ndaka mu ni wëriñ ma jañ saa joor mi ba wéeri ca déggu la comme karasoli ca looy diima ba ab diima boo cay añ ca bañ karab-karab jaag yëngu-yëngu yaag rajax rajax ja di la fitnaal da ngay wéeru ca alluwa ji ndaka ma wéeru ca table ba alluwa ba rek dégg la comme xëcc bool bi mu taafoo fii sama kanam ma ne ndab la kulbet bi ma nee kulbet ndab lii rek suñ nuyu nuul fukki séq bu mag gi laa jëkk yam ma wokk ndox lii rek mu bittan ku ma dóor kom xas ndax ma cookee nam yi rek ni yaa ma tiire nii tip ni rek laa bi ma soloon bi niip bi gaweer ni silat bi kaayam bi ru gëllu ni ni xët yaa ma tiiram yi déggu la comme fellup càmmoñam bi da nga koy mokkati fellup ndeyjoor bi mokkati ko dam ma doxam gi liisal xefam yi déggu la comme di yiy di yëy di yëy ba bu ma suqee laafum ganaar saa yaram yi day daw ba saakaaru bopp gi firitu mëbb ma ganaar ya ba ñu féete benn boor ma roos sama loxo nag ca taatu bool ba ba jot nditt la ma dank ba juróom-ñeent dank ak bu ndaw ah ba ma nee gees nag jàpp ci déggu la ko pudlu njar gi ñu ma njaraloon ma dal koy koroloog naan ko ba sell goore ne jàkk saa bopp nag sama yaari xel yi werante ni ma man day Moussa teraanga ji la gone yi teral te yow du guddi ba nga mën a daw te yoratoo dara loolu man de xaw ma naka mi xel ni ma xoolal xadi kumba caw mi ma samba bàcco bàyyam moom dëkk bi muy meer gone yi waxanteel ak moom kulóoral say kaaja waxanteeg ñoom waxi kulla lii mooy dëgg ma ni ko wax nga dëgg wax ko lu baax ma roof gulu kum caabi jëcce wali foo ni bii mun naa falaat ma ni maa dog daal li nit dik ci sama kanam yakam ci won mama gan nga mi japp ma man ci ba jëf mo wona ubbi lu maw do galle waye kal ci ndu ma mbanaar ni banarum suuf jël ko ba nga xamni jël ba kawé na ma yukki ko ma do galle ba ma ni tegg rek tir bu sama ba maa wog gi nag direction ba déggu la comme tax fa mu kii bi mbor mboraan yaag mbox mboxur yaag topp ko ne ma yee mag maa doog gàlle kaw maa ngay def talax talax talax talax talax talax talax mel lay sënk lay ne dale ci saa saa weewu tànk bi yéegu ci sànkaaru bopp gi ma dig maa doog gàlle fi suuf ni jàkk saa bopp fekk maa gënnu jukki fóori yu mag yooyu nga xam ne gubéer la yor gënnu xay moom moo xam yaari dagg riital ko ba mel ne xel fa ma nuux ko ci ba gën a gi jul ma daara ñaaru bant booti njaay ne boy mu ni jéet ko nisuxeet nit tey nisuxeet nit ni nisuxeet ne xaax nit mu mel ne nag da ngay leewu nii beeg ci bi di ma sëppe bopp ka si teegi fi ma ñokkati ko nag tëdd ca carrosserie jiima ba ba ba ma ko mu féete ne ma puus bu biir ba ba mu tafu ni ma dëgg ca carrosserie jiima ba nag jafandoo xaru pindal ga ni tot nag man bant mooy gologol ba nga nee ni jafandu naante nag ni jàkkantoog waa pénc mën a dind saa gat yu ni ko xadi daaw sin ci booli bi waay ñu a ah mu ni ko ñëwal ci ceebu terax ndett bu sant mbooj bi ceebu alkata la boom neel maa mbooj beeñ ganaar yi woon ci dëkk bi yëpp ray nga leen gi dee kumba jub dee cox liix dee ramata njinjaan dee daagool dee daagoo nga dee njéeme yos dee na tantan baay bi siq dee jaaji géelu ganaar ya dee na nga boole ko nduur futti mi day de gëleem teemu lu donko dank naa dank guppi guppi kaata kaata ëmb ëmb giir giir ceeb beeg yàpp waa ngi xiijee tay ñëwal ci booli bi nga boole ko guro kaakaande geen maakaande ànd jàmbare taaj bon saakuli ba nan ka pour ka kër kan ka daqaar da keelu kolong dekk bu ñu raytal guro tambandong guro jaata fer ñool ci guro yegg nag dañu giwi nga xali boo ci jëlee doom xaar ko nga doo bu ca golo jam ko ni geen ba du laal suuf ñëwal ci booli bi jekki naan ci diggi boo fi lawi ko neew sàkket dama koo fi neew dóor dóor maa nga jaar dëkk bu wax tay ba sëy ñu ngay tay ba ndemu tësuus mani bii dëkk ma su foo yàgg lawi ko neew sàkket ni lugaloo jaar dëkk ma ne su fo yag laaw yi koo fa new sakit bu ma ko fa ya new dóor dóor jaar dëkk bu wax kéel gi fekk mag ñey kéelli kéelli gone yey rajax rajaxi ñu njongal saxaar lu roppalaan di yóbbu ngantal ma ne bii dëkk daay ma ne su fo ne ñun dekk bu ñu wax déggu la la wax man degg lu ko kër ñuy mbalam mbaala man bi dekk dëkk ma ne su fo ne ni kër Demba fal dër ñu ni ma demal ma ne ngaar na sàll dër ñu dior ci ni ñu sàll ni ma dann man bi dekk day dawaay ma ne su fo ne jaar ndimb ñu tak seen ndim ya ni ma dann man bi dekk day dawaay ma ne su fo ne law yi koo fa new valeur thermique a yor ma ne bii dëkkit kat waaye ma ne su foo ne lawi ko fa ne sàkket jaar dëkk bu wax gërëni ñool ma manu ma xaw mag gone gese ma ne bii dëkk ma ne su foo ne lim ba bug loo jaas lu ba max ma daanu foo leen ñu fal ma ma ne nguraan tër ñu ne ma ngor ma ne a bii dëkk kat ma ne su foone jaar dëkk bu ñax mbisis ñu ne ma mbiis ma a ah bii dëkk kat waay ma ne su foone jaar dëkk bu ñax ngóor ngóoru jigéen néew fa góoru kese dafa ma ne ah bii dëkk kat waay ma ne su foone lawi ko fa néew sakkat ni warga loo jaar na ngay tàngal warga kese wu a suukar dëkk daaj ma ne su ko fa néew sakkat ni co a dara ma ne bii daaj ma ne lawi ko fa ba ma koo fa néew dóor dóor ni Ibrahima Fall dër benn solo mu gën ne fa bàyyi julli gii di ko xumbal ba mu ni sareet xar ma ah man naa daw ak sama bopp jaar def ndax bella xoo ñuy bell belli man bii dëkki daay ma ne su foo xal mbaan sàll gone ya di xal man bii dëkk daay ma ne su ni gàddaa fi dër ñu dóor ba ngand ma sa kebe meer fekk benn dugóoru meer ne fa maam ma ko da sox fesal ne baa doola bu laal dugóor bi moom dee man bii dëkki daay ma ne su foo ne law yi koo fa ñëw sàkket ne masar jóob dër ñuy maas maas yi man dasaar janni man dem na man siidi wi naa laawi koo fa new sakkit ba ma koo fa new dóor dóor ni naam yéen dërr ku ne nga naan naam ci kenn woowu leen man bii da kit dawaaj ma ne su foo ne jaw dërr ñuy njeng njeng man dëkk bu ñu wax dégg la dërr ñuy dank ceeb ba yoru doon leen yor ba daanu ci seen kaw te ma ne su foo man bii da kit dawaaj ma ne su keneen jobb kër ni kese laa jaar saar seen gët yaa nga jaar xonq coy jokkul dañ maa naroon a ko dañ sëmb mag ñaan ko ne yaa ngaan da daanu ci yéegi sëmb mani di dëkk kat mane su foone jaar dëkk bu yox siin jang lañuy siiru ci suñu si dara mani di dëkk de waay mane su foone di gula kom yu xam ci ku di gula kom jaar jajj lañuy jajj te bënn ma laawi koo fa neew sakkit ba ma xoo fa neew dóor dóor neet dëkk ba ñu wax ñu jekki naan dëgg ba ma dikkee nag damaa fekk bàyyi ma sàmba mbaa cog yemb yoro faal yemb yoro awa ñoom di dee naar daandaare booba laa fa jóge wu kenn nga dee ci dëkk ba ma ko jóge fa jot na kat ma jot na nag ma la léegi noo ngi ci a ah, déggu la comme ah, sëñ ñaagaan sëñ ñaagaan moom ni mu demee woon sëñ ñaagaan a gënoon a doy waar yépp ci àdduna moom ndax sëñ ñaagaan bi nga xamante ni booba taa réew mi daa tas nii mbay baawo fa yoreenub lempo booba na la sëñ maama koddu sàll di fayub lempo maam Codé Sall daa tasoon moom sunum réew winjëng winjëng winjëng bari na ci dëkk yu gent yooyu fii mu ne tey boo fa demee ak gent nga fay at moom a la gentoon ba fii mu ne del seeguñ ndax maam Codé da daa duy béj waaru ndox taaj ko ci pénc boo xamee ne bëy laal na ko mbaa ganaar laal ko képp mu ne man ngeen a matal koy rek dana nangoy sàq dana dumay nit di nangu tookari puloo di jàpp nit di dóor lu ne maam Codé def la Sejak japp ni tudar ko ba mu toog xep mu jañ ko ciw naaj di ko xooloo ci jant bi di dóor lu ne maam ko du def na ba nga xam ne dëkk bi dani landat yàlla dogal nag genn góor gu ñu wax sëñ ñaagaan moom defal na góor gu yàlla may barke te muy boroomu tur te siiw lool ca réew ma te man boppam ñaagaan yàlla mane na ko gan moom daa amoon waame ñaagaan nawetam bi baax lool ma koddu nag dëndëm yi tëgg rek yi dikki xij dégg xij dikki xij dégg géwél yow ay galo di ga nagay galo farimata galo ci yaay ah sàll gi yàgg na noo ba ñu ma jigéen faal borom jekku laay njiy ko gën yirim doon nay buur masambay bay bayaar bi dem parti di ceemal ganjol daaw ndum de ndeela di bopp ak baawol galo di ga na galo farimata galo ci yaay naan laay sàll gi yàgg na noo dal mu ko fay lempa danaa lakk sa lu bon daañu matal lempo bi bu soobaa géwél yi di ko xam rek lënd ya dal mu dajal yi mi kat ba kabar dëkk bu ñu naan jege dëkk boobu ñu naan ma ñaaga jàpp benn dagam bu ñu muudu mara njaay nga xam ne mbërum sufit la woon moom mboolem dag yi muudu ci gënoon a gën cee soxor dàq cee dóor gën cee mën daw fas ëppale ko ci doole mu Modou Mala mu ko mu ko dama bëgg nga dem def ci lemp bi Modou Mala ni nit bu nit fii Modou Mara Safa ne ko fas wa dar wi ci dund ba yéeg ba jeex Modou Mara sajal ko mu dóor yaari ngënd mu balax ko ca mbeddum ñaagaan mu ni di ñu dër ci buntu këru seen ñaagaan fa guy ga Modou Mara ni yaay ni ciib ni ana seen ñaagaan mu joyet ko ni ko maa ngi waay mu ne ko maam ma kodd nee na lempam ñaagaan bi gu tardé na lool mu ne ko soo demee neen ma kodd day boor bu ñu fan may boorum ngas kare ndax man falu naa te bu ma folli kootee damaa dem barsàq saa njëla fanweeri at ak benn maa moom ñaagaan mësunoo ar yeleb lem foofu mësunoo ar yeleb ca ko soo demee neel ma kodd mënuma band baraj wala mu safaane wala mu di ma bal ñoot ba ma fay ko lem peut-être dajale wu ma saam ngooñ ba ñànk sama dig joyantey tànkam ni ko boo demee waxal loolu ma kodd sëñ Modou Malawan ni dër ni sa ñaani maama kodd ko sa ñaagaan wax na la mu ne ko lu mu wax nee na la da ngay buur boo xam dañu laa fal muy buurum ngas ka moom ne bu folli ko tee daa dee njëlee lii ko fal mais fanweeri at yi jett moom moom ñaagaan mësul aan yereb lempo mësul aan yereb seko dara mësu koo tardeel ci waru garu kon nag ne mënoo muus ba mu fay lab lempo daal te du daa dajalem ngooñam bañ ak ndinkam maam ma kodd nuy loolu yi mu ni ngëelal lii dama ko fal de wax na dëgg fanweeri at yéen moom ñaagaan ak yett mësumaa gis sekom bu war yere wala lempom fajjo bi wax na dëgg de waaye da <laughs> war na maa lempo bi nga am ñaari fan ak ñett dënd maama kodd ya dal ca dëkk bu ñuy wax dëgg la comme tàggaan ngañ bi di di di di teel nga doom ji ni ko bàyyi mu ne ko xam mu ne ko ah waaye dëndi maama kodd yaa ngoo di tàggaar mbëgg ni tàggaar la ñu yendu tey mu ne ko yow la ma kodd saf waaye man safuma na la leer ni ma kodd gënu may boor de te bi léegi la ma ko waxoon démb mooy li ma ko wax tey mën la muus ba ma jox ko dërëm te du damaa ñaan ndingli rek jigéen ñaa ngay jéeri sotti angaar ba jëm kaw rek mu joyante koy raay koll ba ñu semb yett sàq ci wanag kumba ñaagaan di wëtt xar yi wëtt di jox ñu di ko defal cere soow muy ndékkee kollam ji nit kenn waaw kumba ñaagaan ay waajan yi bi nga xamante ni déggula ko laa la wax man am nañu déggula ko juróomi fan ba ko juróom benneel maam ma ko doon Mbàkke Faal jaraaf bi nga xam ne nag moom mooy dara ñeen ni dama bëgg nga dem ñaagaan léegi boo demee nga dem ñaagaan nga ne seen ñaagaan lemp bi nag na ko indi na ko indi kaf jeex na léegi jeex na nag may yëpp lemp te kat bëgguma dajeeg moom wala nu jëf kenn te lool adduna da ciy teg seen bët ni fas wa nit mu ni tati tati tati makke soo àndee dëggal yëkkaan ak fas wa dara yi ca dënn ba yéeg ba muy cëppeelu rek mu song ko mu dóor yetti ngën mbàkke balax ko ci mbedd ñaagaan yi mu ne tiri tiri tiri tiri dërra ci mbakke ni yaay ni ci ñaana sa ñaagaan mu ne ko maa ngi mu ne ko maama ko du ne yàkkamti na lempo bi caaxaan faaxe li mu bëgg mooy nga faab lempom ñaagaan bi yët ko ko mu ne ko soo demee neel ma koddu gënu may buur dañu ko fal ma falu rek nee ko fanweeri at mi ma moom ñaagaan ak yett mësuñu arrière lem pa mësuñu arrière sekku waaye mënuma band bare wala mu di ma bal ñoot ba ma yët ko ko te ñaaguma sama ndingil Mbakke dellu wax ko ma kodd mu ne ko bàjjo bi wax na dëgg waaye bi lee baax na daan daje maam maam suñu ñaagaan na kay ni gone yi léegi damaa bëgg bu ñu noddee fajar rek nu dem ci nding li ma dajale ngooñ mi nu bu buñ ko tàppoo rek ma yëpp ma koddu lempam bi ndax lemp bi juróom-yaari ñaagaan yëpp fay nañ ko mat na ba mu ngi sama sonka jeere gu mag gi nga xay def naa ko ci kon nag nan daal di defaru ñu noo dafagar nag rek maam maam seen ñaagaan da di buddi koog sendal gu mag naka mu ngi jaas ci déglu ko gëddum naaf rek dal koy ruuf duy ndéeglu ko sendal gi ba mu jul funtu mu geesu gone yi jotu gu ñu ak si rek sëñ ñaagaan nag mbërum sëpp la woon te booba soom xar mi jaay na sëñ ñaagaan tam ba tuwoom bi rek ni fenjal gam lool sànkaam nag mu ni ko yëkk rek déggula kom laa wax man soog ko jeere gàllonk ca bëñu sendal ba mu jub mu yokk koog moom rek ndake dagg coy la ngaan sëñ du ko ne sendal ga xëpp maxtu ma daaw la ca ndett la gone a daje ñuy roñ di ca sotti di ron ji ca sotti ba ñu nodd tisbaar gone yi ñang dingi li ko ba mërngal ko amul bunt sëñ ñaagaan ne jaa sekk jabar ji laaxal ko laaxum dabram ngokk ba mu sef mbëni gum yàgg na ngay suugal ko ba muy xëy ni kay sëñ ñaagaan moom bu lu añ ba wañ ñaanal ko mel la ko teel ko kulul ba wonul dëgg añ ne reenu ma ni reenu dugóor di ko bërëb ni ni dundal ni faj ni lawe ni jilambana ni riyan brak riyan dugur ni bob bob bob ni imbaga gini bada gini bakar lamu ngabat ngabat ngabat bang ko nem tewe di gulo ko ni imbaga gini bada gini bada gini bakar lamu ngabat ngabat ngabat bang ko ni gulo ko kan do ci ci gulo ko se nyagan bon gulo ne rete nyakam ni mu fexum lo xam ni tax ko joyante ko ne jak tegge tanke nak lo ko ju ñu dal koy xeral di gulo ko yor ataay se nyagan dal koy def fuuf naan ni mu nee nga laaj mi jaaxaan nag ndax ni doom ji Modou mu ka ko ñaaye mu ne ko dawal jàppali ma Kumba Ñaagaan ñu takkal ma ko ñu takk Kumba Ñaagaan ak sabaras goj goj ji nag ak ak laabi sagar ji dégg la comme sëñ ñaagaan daal di man ko yëkk nag Kumba Ñaagaan ak yiy laab ja nag mu sóodu ni nag ca kaw lal ba raay kollam bi nag nelaw dikkal ko mu ne for bët nag ñi mu fore nii bët songali ndaat këndëng nag as ndaw ni jaas ak ba tax ñu ko ne sëñ bi laay nag déggu la comme man lu ñuy déggu la comme daal i jaas ne ne ne ne doom ji Modou dama bëgg ku ma wecc ci ñaari téeméer mu ne ko dangay dem ca Baye. xam ah, nga takk na ba noppi ma nga yóbbu lempo ba dawal mu daal di sox ne jaas ne salaamaaleykum ne jarul sa kër ñaa ngi ne xërit ñu ko a salaam mu ne ko bàyyi sëñ ñaagaan damaa bëggoon ku ma wecc ci ñaari téeméer ñu ko kayit bu yees yàq saa bàyyi sëñ ñaagaan ne joyante ko ndaka mu ne ñokki jur ñi léegi nii ji di débla comme ses dooram bi ci karasulig lal bi ndaka mu wëggalu rek duuru kollam bi tamba tambalam nii rek daal di dajal ko jeerig mën ko ko bis rek mu di ko yóbbu fii lu motu lam joyante ko rek atam mu débla comme fii raw ga daa dal ci ngaatam gi ndaka bu ko xëcc débla comme ko mu <laughs> tàpp toll ne jàkk rek milimaan ja nodd naka mu nodd te booba sa ñaagaan juróom yaari ñaagaan yëpp moo leen di jiit jëriñ ñaagaan ni rek daal di xaddami ko ni jaas agsi na naka mu ne agsi dégg la ko ñu le xaamal ko sa ñaagaan taxaw ni la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu taala alayhi wa taala ji man sa ñaagaan maa ko waaru waay man sa ñaagaan ku waaruwul yaa waaruwul waaye man sa ñaagaan waaru na juróom-ñaari ñaagaan yi yëpp nga xam ne dajaloo nañu fay lempo bi man sëñ ñaagaan ma def ko ci sama poche bi mu ne wala yëg yëg loolu moom du ma ko waxi mukk mukk mukk allah akbar waa ji man sëñ ñaagaan fu ma xala jëm waa ji le jëwén yi nga xam ne di ko bàyyi loolu du ko wax sama doomi bàyyi ak samay rakk yi ak saa ñii ñëpp moom moom leen boo leen ñu fay lempam ñaagaan bi ba mu daj ma def ko sonko jéeri gi mu ni wëliix réer loolu duma ko wax mukk mukk mukk mukk man kay damay wadd nit ci teen bi janlim rek allahu akbar wajjile man sëñ ñaagaan la ilaha illallah ma man sëñ ñaagaan fu may jëm waay géwél yi nga xam ne ñoo daa mujj fay lemp sax ren ñoo jëkk fay li ñu laan fay na magat ñilan fayna na mu ndaw fayna na mu mag fayna usman ñilan fayna fay na jaata ndeela fay moodu may fay mor mbay fay mo man sa ñagan la ilaha illallah lolu kay duma ko wax mut kaf jeex na ligit jeena jabar ja gona ya daw songu nding la jabar ja diglu kum dox lu rek di bërbëri bane lu xet ko jeela ga bane fa jeb sa ñagan rek sa ñagan ar nopp bi yenu ko lan tëgg ko fi sof ndaw sa ne ngalañ sa ñagan tegg ko rek wacc fa kumba ñagan dëngulu dëngulu rek ñoo tak fa ko nana so jagandi ɗi ririririririri boni dirfek mama koddo sallah fan jompi mo xëpp ko lemp bani ko sab lempo ngam ya, ya. man nag booba laa fa jóge wut booba dong laa fa dal di jóge waay ba Modou Ndiaye dafa am sama rakk joo xam ne ji daf maa waxoon ni Moussa fooy defarati band na nga ma dimbali defal ma ca fourno fourno fourno bili bànneex yooyu te biri bànneex yi njariñ la ci Sénégal gi lool surtout sunu réew mi nga xam ne matt amatu fa léegi biri bànneex yi xale bi moom la ñuy wax Nogoy Fall Samba Diarra Mbéri la bàyyam Nogoy Fall moom mu may publicité loo fourne gaz yi boo déggoonte ni dañuy tabaskeeb géwél fu mu ma fekk duma ma raw noonu na ma nag Ngana Sall tabax nañu fa juróom fukki fourneau dëkk bu ñuy wax Kër Mbaala Ndiaye defar nañ fa ñeen fukki bili bànneex dëkk bu ñuy wax Kelle gi defar nañ fa ñaar fukk ak juróom-ñett dëkk dëkk bu ñuy wax déggula koom Pël Ba defar nañu fa ñeen fukki furno defar nañu dëkk bu ñuy wax déggula koom laa la wax man yëbbatil jóob juróom-benn fukk kon furno yooyu am nañu solo lool ci réew mi am nañ ci njariñ mat nañoo xàmme bu baax a baax seenub liggéey aw na yoon yal na leen yàlla ak yonent bi gëm mi jeex la ak borom Touba jàppale li ñuy def aw na yoon bëgg naa ko jërëjëf. kon xam nga loolu baax na ci Sénégal. moo ne du xeeñ saxar itam nag du xeeñ saxar du xeeñ matt du soof de. du def dara ceeb bi wisang lay def te it bi mën naa toggub ceeb lool mën na def laaxub soow mën naa def góor sëg mën naa def góor ñang na ngaram mën naa def sokk mën naa def càllal mën naa togg déggu la ko ñar mën naa togg gidaanga mën naa togg jodd mën naa togg puloox dana rooti it bi li ba yooyu daal réew mi moom tas na ko ndax a baaxay ak daxin nag la ci gën a dàq togg daxinu gerte goo xay yi déggu la ko danga koy defarit am na sa solo lool ci bi li ba neex yooyu band bii lu la defal yal na ko yàlla eggale fa nga bëgg mu egg fa ci daraja yàlla ak mayant yàlla Mohamed yaakaar naa ni nag dana am ndax band bi bi nu ko tàmbalee bi mu daataan egg yàlla dogal na sëñ Moustapha Mbacke yem na ci sëñ Cheikh Mbacke yem na ci nun noo noo ngi sàkku ci ñoom ak ñaan goo xam ne gii nun dana nu kawe yàlla mi kaweel ni te borom Touba yal na nu yàlla jàppale nun ñëpp ba kenn ku nekk la muy jéem yal na ko yàlla ak yonent bi borom Touba Mbacke eggale fa mu bëgg mu egg fa Música